bismillaahi arrahmaani arrahiim yéen mbokki taalibe yi yéen mbokki jullit yi yépp maa ngi leen di nuyu ci turu الرحمن الرحيم bismillaahi rahmaani rahiim yéen mbokki taalibe yi yéen mbokki julli yi yëpp maa ngi leen di nuyu ci turu sëñ Muhammadunil Muntaqa ayyadahu llah wa nasar wa hafidahu wa satar wa rahima salafahu wa xafar wa liman amana wa aslama wa lam yastakbir ndigalam di leen jottali ci ndigalam kàddu yi di kàddu yi ndokkeel ak sant ak ñaan ak soññee ni ñuy ndokkeel al ummatal islaamiya bépp di ñaanal ñi ci ne ci aw tiis leen ko ak fuñ man di ne rawatina nag suñ bokk ya ca Palestine ci weeru ngëneel wii di weeru mbaax di weeru ragal yàlla di weeru yërma yërmananteeg mu tolloog aama alfin wa arbain miatin wa xamsatin wa arbain atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom gannaaw gàddaay gi ci gàttal foo bokk na ci njariñu war ko la ci ñaari gàcce yi ak ñaari sawara yi gàcce gu àddinaak gu àllaaxira ak sawara wu àddinaak wu àllaaxira ni ko sëriñ bi waxe nafu siyaami shahri fi daarayni yakfikumul aarayni wan naarayni kon maa ngi ndokkeel ñépp ci turu sëriñ bi ci teru teg weer wi di ko jottulil cant it mbokki taalibe rawatina kilifa yi ci pastéef yu dëggu yi ak taxawaay yu rafet yi di ñaanal ñépp yokk ak mucc ak ngërëm di soññee it ngir ñu gën bàyyi xel weer wii yeesal ci pastéef yi yokk ci jëf yu baax yi waxuma wàññi ci waaye teet ci jëfi safaan yi di fàttali li sëriñ bi sëriñ bu mag bi waxoon ne koor nekkul bàyyi lekk ak naan rek cër yépp koy maase def fa sawmu an yasuuma kullu udwi an kulli ma yufdi fatan li sahwi te loolu dafa mel ne daa nettali rek addis bay wax ne ku bàyyiwul waxi neen ak di ko jëf yàlla aajoowul mu bàyyi lekkam ak naanam ku dul moom it yàlla aajoowul daraam ndax lu waay yor rekk moo ko ko jox lim digle ki ko def lay jariñ ki ko deful mu wàññi ko lim tere ki ko bàyyi mooy mucc ki ko bàyyiwul loru moom daa sañe digle di digle rekk sañee tere di tere topp ko jëriñu ko dara mooy ko wàññiwu ko dara aajoowul ak lekkam ak naanam mooy rek mook ku wóorul la yamale du ko ci bindal tiyaaba man lam yadaa qawla zuuri wal amala bi fa laysa lillahi xaajatun an yadaa taamahu wa sharaaba julli yéeg asaka yéeg aj yéeg yépp noonu kenn ni mu ko waxee ci tabaski yi ñuy def لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم lu waay di def ci yii yëpp na ànd ragal yàlla rekk mu bañ a fàtte it ne koor am na ñaari farata jenn ji mooy yéene woor ko ci guddi gu jëkk gi bala moo jeex te mooy fajar jot wenn yoon weer wi nga boole ndoo yéene lépp benn yoon dana doy ak doonte ne sopp nañ di ko yeesal guddi gune gu ñaareel gi booba muy jeex ñaareelu farata ji mooy ki woor boppam ci lépp lu yàq koor naan lekk jaxasoo ak yuñ mën a yéegal ci yooyu li tàmbalee fajar xarxaaju fajar ba wi so lan moo di so nag wuute am na ci am na ñu ne mooy suquutu xursi shamsi taxtal ufuq maanaam nga nekk foo xam ne dara làqu la janoog jant bi di ko gis fa sa bët yam mu mel ne luy dugg ci biir suuf ba jeex tàkk wala bu dee géej mu mel ne luy dugg ci biir géej gi ñu ne bu loolu amee fam amee rek fa la bëccëg jeexe laylu ñëw na te alxuraan summa atimu siyaama ila layli la wax fii daay man mooy tolloog waxtu wi waa dëkk bi di dolli ñeenti minit soog a dog am ñu jàpp ne loolu rek doyul laylu ñëw xañ na jege naa ñëw rekk waaye ñëwagul ndax mooy safaanu bëccëg te bëccëg mooy diirub jant bi ne fi akuk leeram njëlbéen gi ak leeram di ko fi jiitu mujj ak leeram di ko fi mujj kon jëm ji dem te gi wàññikuwul ba tàkk du tax ñu mën a wax ne guddi ñëw na faaw la lëndëm am lu néew néew gannaaw suquutul xurus gannaaw bu jant bi duggee ci suuf si wala ci ndox mi lii wax kukk mu soog di mën a wax ne guddi egsi na am nañu gisee noonu mu kàllaf nag sañ naa seet li ko doy dalxelam xelam ci diineem mu ne ca loolu ku ne sañ na ko koor am na it ñetti sunna dog gannaaw boo xamee ne jant bi sona yaa xam nag yow loo jàppee jant bu so ak yeex a xëdd tem jëkk fajar ak bàyyi lu amul njariñ ci wax ak ci jëf lu mu ci man di doon doon nekk rek luy indi tuyaaba nekki jàng alxuraan taxaw guddi addis ba nee na ku ko def ngir rek gëm njëgal gi ci dige jàpp ne yàlla dana ko ko ci defal te bañ caa jublu ñu gis ko ci loolu bañ caa jublu ñu dégg ko ci loolu dees na ko jéggal la jiitu ci bàkkaaram bàkkaar yu ndaw yi nag moo tax ñuy wax bakkaar yu mag yi moom tuub rekk moo koy far tuub it day ànd ak yéena bañ caa dellu waaye tuubandi ba koor gi jàll rekk du tuub du tax far bakkaar bu mag ak doonte ne wormaal koor gi la te loolu lu baax la yàlla na yàlla dimbale ban màng ko cenam gën mate gën nee rafete ten fekk ko at yu bari tem dolli jàmm ak ndimbal sun kilifa gi sëñ Muntaxa gën ko fee yàggal te mottali mbooleem sumb yi maa ngi yalwaan it ci biir ci béréb bu tedd bii bu yaakaaru bii ku fi ne ak ku sama kàddu yegg ci moom ku manti doon muy ñaanal suñ mbokki jullit ya ca Palestine ak doonte ne lu war la ndax ñu leen jullit mën a dimbalee rek war na koo def te ñaan benn jullit télewu ko yàlla xam nag ña ca yelloo nangu la ñam cay nangul ak ñam dul nangul te yeex a gis natiijam ñaan li juddoo ci ñaan tekkiwul ne daa amul njariñ walla yàlla da nangu li laa ne woon naa ko ci dolli di jéggalu njuum te lu ci man di am waqad jàlla man laa yashu duma fàtte ndokkeel nag sama mbokki daara yépp ci bisub sëriñ soy bu bii mu jëm di ko ci fàttaliku ak a ñaanal yal na ko yàlla yal na ko yàlla fayal ñépp mais naa wax ne bu amoon ñenn ñoo xam ne seeni jëf seenu mbaax may na leen du jar kenn di leen ñaanal danaa mën a wax ne ca la bokk ndax léppam mi ngi ci diggante koor ak alxuraan mi ngi gane àddina ci koor gannaaw ba alxuraan wàccee ci koor dundam gépp mu jeexal ko ci jàng alxuraan ak jàngale ko génn àddina ci koor yal na ko yàlla gërëm te fayal ko ñu jaare ci loxoom ñépp ngeen ji pay tem sàmmal nu ak njabootam defal nu ci lam ca bëggoon wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين